guddi yi dañuy dem ca kër gi nga xamante ni moom mooy assemblée nationale foofe nag jamono jiile ki nga xamante ni moom mooy député bi di Guy Marius Sagna mu ngay naqarlu bu baax a baax ndimbal bi nga xamante ni Corée daan na koy def ci projet bi ñu taxawoon ngir yeesalaat kër googu yi nga xamante ni moom mooy assemblée nationale gannaaw rek li nga xamante ni moom mooy njeexitalu liggéey ba ñu fa nag sumboon assemblée nationale ngir yeesalaat bërëb ba mu nekk nag ab projet de koy amal débuté ko nag ca weeru mai maanaam nag ca weeru mai la ñu tàmbali woon li nga xamante ne moom mooy liggéey ba te nag li nga xamante ne moom mooy yeesalaat boobee agence coréenne de coopération internationale dugaloon ci loxoom ndaxte nag dafa jëloon ab dimbal daal di koy jagleel nguurug Sénégal rawatina nag kër googee nga xamante ne moom mooy assemblée nationale loolee nag metti lool député bi nga xamante ne moom mooy Guy Marius Sagna ci ab note la jël daal di koy jébbal suñuy naataangoo yu Seneweb daal di ci xamle ko ci bësoo tey bii yemoog nag ñaari fan ci weeru juillet loole nag ki nga xamante ne moom mooy député bu quatorzième législature bii le moo ko daal di xamle mu ngay nag dénoncé li nga xamante ne moom mooy ndimbal boobee nga xamante ne république bu kore moo ko nag jébbal assemblée nationale bokk na ci ndimbal boobee ay micro yoo xamante ne nag ñu ngi koy jëfandikoo ci assemblée nationale googee nga xamante ne nag réewum Corée moo ko may assemblée dëgg la bu ñu demee nag ba kër gi nga xamante ne moom mooy assemblée nationale ñu koy may ay micro yoo xamante ne nag mu nga bàyyi ko ci réewum Corée loole nag jàpp ne ne dañu ko waroon a bañ Guy Marius Sagna dafa jàppale nag nguurug Sénégal dañu ko gàccal ci ndimbal boobee nga xamante ne daal dañ koy jébbal assemblée nationale mu nekk nag loo xamante ne ci weeru septembre atum deux mille vingt deux la amoon fii ci diwaanu Sénégal nee na nag jot na ngir ñu rendre compte cent soixante cinq députés yi nga xamante ne ñoo nekkee ci diwaanu assemblée nationale. ndaxte nag li nga xamante ne moom mooy liggéey bu jëm ci doxalinu budget boobee dara leeragu ci activiste bi li ni mel la xamle nee na nag li nga xamante ne gis nañ ko ci diwaanu Sénégal ñu koy woowee assemblée nationale nee na nag dara national amul ci mbir mi jàpp na ne nag la ñu fay gis nekkul loo xamante ne dëppoo na ak suñu société te nag peuple bi xamuñu lenn loo xamante ne mu ngay xew ci assemblée nationale jàpp na ne assemblée bi intéressé wul bu baax a baax ci li nga xamante ne moom mooy présence militaire français yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci doonu Sénégal beneen poñ boo xamante ne assemblée nationale xoolu ko muy mbirum franc fa bile amul benn rapport boo xamante ne daan nañ koy fësal ca mbir moomee jàpp na ne nag li nga xamante ne moo ñor askan bu Sénégal assemblée nationale def ko nag woon gannaaw teg ci nag fulaalu ko ñu àddu ci leneen gannaaw rek li nga xamante ne ay bés yu génn yëpp ñu ngi koy gis ca kër googee nga xamante ne moom mooy sa tey jile nag ab liste prime la ñu fësal yoo xamante ni jamono jile nag tax na ba liggéeykat ya fare ci RTS maire boo futtu gannaaw rek ba ñu daggee lépp loo xamante ni dafa doon prime njiit bu yees bi nga xamante ni moo fa wuutu Racine Talla di Pape Alé Niang moom li ni mel ab confrontation la ñu nemmee ko jamono jile ci directeur bu yees bi ak ñi nga xamante ni dañuy ay liggéeykat nekk ay syndicaliste yoo xamante ni ñu ngi jokku ci professionnel de l'audiovisuel public ya nekkee fa nga xamante ni moom mooy ci duwaanu RTS tey jile nag la ñu woote woon ab assemblée assemblée générale yemoog nag talaata bi ngir nag wax ci crise bi nga xamante ne jamono jii de mu ngi am ci rajo télévision sénégalaise nee nañu nag situation ba fa nga xamante ne moom mooy ci RTS jamono jile jot na ngir nag ñu daal di koy saytuwaat gannaaw rek accord yi nga xamante ne signé woon nañ ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars bi ñu génn ki fi nekkoon nag directeur général bu RTS di Racine Talla amaloon li ni mel accord yooyu nag jamono jile ba nag loo xamante ni neexul ñenn ci liggéeykat ya fare ci kër googee nga xamante ne moom mooy RTS nee nañu nag ay indemnité de fonction yoo xamante ne nemmeekoon nañ ko fa ñu mën ko xayma nag weer bu jot ci trois cent cinquante mille yoo xamante ne ñii di directeurs yi la ñu ko doon euh, jébbal yeneen koppar yoo xamante ne toll na ci cent cinquante mille francs ñu ko doon jébbal chef de service yi euh, cent mille francs ñu ko doon jox ñi nga xamante ne ñoom la ñu ay chef d'unité euh, li nga xamante ne nag moo jëm yeneen i salaire mensuel yoo xamante ne takku na lool doon génne ca kër googee di RTS ñu mënoon ko xeeba ci huit cent mille doon ko jox directeurs yi deux cent cinquante mille lañ doon jébbal ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor département yi maanaam nag chef de département yi Euh, cent cinquante mille chef de service yi cent mille francs ñu ko doon jox chef d'unité nga xamante ne moo biril yi lay xibaar nee na nag lu ñeel euh, prime de logement yi ñu ngi doon joxe cent cinquante mille jagleel ko directeurs yi deux cent mille ñu ko doon jox nga xamante ne ñooñu mooy ay conseillers ak ay chef de département euh, cent cinquante mille ñu ko doon jox chef de service yi cent mille francs ñu ko doon jox ñi nga xamante ne ñoom la ñuy woowee ay chef d'unité journal bi nee na nag lii nga xamante ne ñu duppee ko fonds commun équivalent yoo xamante ne nag cinq pour cent la woon ci li nga xamante ne moom mooy li nga xamante ne moom mooy fonds global bu toll ci million cent millions maanaam rek ñaari téeméeri million bu ñu sukkandikoo ci article cinquante trois boobee nga xamante ne moo ñeel bile accord nee nañu nag li nga xamante ne moom mooy ay révocation avantage lépp daal dinañ koy nag jël dëxëñ ko mu nekk ab situation de crise boo xamante ne nemmeeku nañ ko ca RTS jamono jëlee nag assemblée générale ba nga xamante ne yi woote woon nañ ko ci bésu tey bi loolee nag la ñu fësal mu nekk nag loo xamante ne metti na leen bu baax a baax ba tax na sax ñu ngay woo directeur bi yees bi nga xamante ne moom mooy Pape Alé Niang ngir nag mu dellu siwaat xelam xam ne nag ci kër googu di RTS ay père de famille ak ay mère de famille ñoo fa nekk di daan seen doole jërë ngeen def mbokk ñu doon teewlu ci Rewmi TV loolee moo fi yeesandi woon ci xibaar ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen jox dig daje ba beneen jaa ngeen